aar sunu élection comme Birama li mu ko waxee euh, situation bi moo tax mu judd. Mhm. c'est re c'est regrettable. Mhm. mais mënoon na bañ a judd. Euh, bi affaire yi commencé aussi ay acteurs de la société civile personnalité indépendante. Mhm. Euh, même des scientifiques. des de simples citoyens se sont regroupés. euh, pour mener leurs actions parce que xam ngeen ni Sénégal ku si nekk fi nga nekk lu mu ruqe ruqe mhm. euh, chacun et chacune vous menez une action mësuma gis situation boo xamante ni où le peuple a été aussi unanime mhm. donc loolu moo tax à sunu élection judd juddu euh, def nañ communiqué pour nakarlu li xew euh, woo nguur gi ak euh, njiitu réew mi ñu respecter le calendrier républicain mhm. euh, woo nañ tamit képp koo xamante ni li ñuy wax les forces vives de la nation les mhm. organisations de la société civile ndax société civile dafa yaatu mhm. le mot civil très important képp koo xamante ni yaa ngi ci catégorie des civils rek mun nga ni mën nga bokk si action euh, euh, kii société civile mhm. y compris les mouvements syndicaux et les autres acteurs non étatiques mhm. ah li ñu am nag mooy sunu baat mhm. naqarlu parce que sunu droit la dëkk bi président moomu ko dañu nekk si benn amul benn dëkk boo xamante ni président de la république bi daf koy euh, gouverner selon son bon vouloir comme ni du buum dibu mi dafa war a redevable à la population rendre compte à la population parce que dañ ko wóolu ba teg ko fi mu respecté ñu léegi nag comme loolu te booy respecté euh, euh, waa dëkk bi yaa ngi commencé ci respecté charte ndey réew mi koy wax constitution bi lépp mhm. comme loolu lépp amul ah ñu jug rek mhm. yuuxu ba ñëpp yëg ñu mhm. utiliser tout les voies possibles mais ci njëkk ak teraanga. Mhm. en tout cas pour l'instant. Mhm. pour l'instant. ci njëkk ak teraanga. Mhm. donc def nañ ay action action yi mooy dëkk bi dafa am lu ñuy wax des régulateurs sociaux. moo tax sànq seen débat bi. <laughs> yéen ñaar ñëpp ku si nekk am nga une partie de raison mais moom am na foo xamante ni wax na dëgg parce que dëkk mm. bi Sénégal dafa chance am mooy dafa am ay régulateurs sociaux mm-hmm. ay nit ñoo xamante ni ku nekk am nga fi nga bokk te mën naa ni fi nga bokk bu ñu waxee dinga nga dégg mais ça dépend ñooñu fi ñuy waxee mm-hmm. donc ñooñu euh, commencé nañ ci imam yi mm-hmm. dem waxtaan ak ñoom boo leen di seetlu vendredi passé am na beaucoup Prêche. de prêches yoo xamante nii si hmm. loolu la euh, si loolu lañ ko orienté euh, sunu mbokku chrétiens yi aussi hmm. gis ngeen déclaration de hmm. l'évêque loo xamante ni ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax loolu implication citoyenne la te ñoom seen implication dafa ëpp doole ñun ñi nga xamante ni ay citoyens ordinaires lañ parce que nit ñi dañ leen di déglu loolu moo nekkoon sunu première démarche pacifique et fédératrice. Mhm. ah ñu jóge fii aussi euh, déggaguñu dara ak ah, ñu dem ak sunu mbokku syndicats yi. Mhm. si des opérations ville morte. Mhm. am na centrale yoo xamante ni fi mu ne nii ñu ngi commencé di appliquer euh, en l'occurrence euh, le syndicat des enseignants. des enseignants ñu ngi euh, ñu ngi ñu ngi yaakaar ni ñeneen ñi dinañ suivre. ah léegi tamit ñu ngi dem si sunu droit nag le plus élémentaire mooy dajaloo ci teggin ak yar naqarlu ba ñu gis ñu ndax loolu rek la ñu am. Mhm. mënuñu accéder palais. mënuñu accéder ensemble ñu joxante rendez-vous ci mbedd mi.